fay jële Papa Sow ndax dana bëriwaat Papa Sow a bëre sotti ci bopp ndax du ko yar ndax du ndax du ni waat dëj bi mbaa mu naan mbaa mu naan xobu mango président CNG wàcc na Pape Abdou Fall wàcc na Papa Sow mi ngi ci kër docteur yi. lamb honorewul tey. déedéet. lamb noonu. ña ngay discuter. lu mën a am. Mame Boye Diao mérité wul lii. moom mii directeur des domaines def déplacement ànd mujjee li ngay discuter ña ngay discuter lu nuy tënk papa ña ngi ko kaala papa saw ña ko kaala ña ko <laughs> léegi nag lu nu wax ndax dana bërëm du bëre léegi laa ma ne làmb ji jeex na de laa ma ne làmb jeex na de papa nee na day bëre papa saw nee na day bëre waaye ñi mu àndal ñoo bañ

Seydou ndax lamb ji dana yeggam du yegg papa bëgg na combat bi ci mën a am papa bëgg na combat bi ci mënti am papa bëgg na combat bi waaye lim génne ci deret bari na lu ci mënti am papa Sow li mu génne ci deret bari na ña ngi ko lëng ma ngay lii mais Papa Sow mi gaw mën a bëre de. Seydou Kaay Seydou. mii di Kaay. mais Balla. Balla mën nañoo xam si situation la toll. waaw situation fi mu toll mooy tey dafa compliqué. dafa def benn paax ñu war ko ñaw war a war am point de suture parce que santé mbër mi tamit moo ëpp solo yenn détails yi. du dëgg ñëw nañu pour bëre ñëw nañu si calme ñëw ci yar gis nga sànni nañ ñu ndox sànni ñu ay chaise lépp ñu ngi concentré wu suñu combat suñu mbër nag su meeku ba pare ay supporteurs am tiit gis suñu forme bi ñu indi ñu bëgg a yàq combat bi Siteu fekk suñu mbër di saraxee mu fekk ko fa géwalam dóor ko sabar ci bopp. géwal géwal Siteu moo dóor Papa bi sol njaxas bi moo ko dóor sabar ci bopp. bopp bi nag dafa def pax dañ ko war a ñaw bu dee nangu nañ ñu ñaw ko amul problème mais jël ko tafal ko loo xam ne kenn xamu ko jël bopp bi takk ko électro mais suñu santé mbër moo ñëppal solo. li mu génnee ci deret est-ce que du risque mu dafa bari même beneen médecin bi mi ngi naan beneen beneen médecin bi kii li mu génnee ci deret dafa bari beneen médecin bi naan c'est bon donc ñun nag duñu sacrifier suñu mbër dañoo ñëw bëre ci jàmm comme nag ñii bëgguñu jàmm bëgguñu salaam. nag nañ xool CNG na jël ay responsabilité mais yéen ñi jege mbër bi est-ce que d'accord ngeen Papa Sow bu ñu ko ñëwee sax mu bëre parce que li mu dafa bari aussi. ñun pare nañu pour bëre. mais situation bi bañ ko xoolaatee xool ko suñu mbër li mu perte si dafa bari c'est que c'est la waaw du ñu préparer combat ay at ñëw ba fii di jël ay risques yu inutile du dëgg làmb nag discipline da cee baax gi nga CNG dafa war a jël responsabilité am xam na yenn mbër yi nga xam ne ñoo indi violence ci làmb xam na yenn mbër yi nga xam ne heure bu ñu ayee làmb ci am problème nañ jël seen responsabilité parce que làmb dafa civilisé. merci merci Balla Diouf ak noonu. blessure bi métti na ndax euh, euh, nee naan cëb bi dafa def pax loolu nag pour mu bëri ci day nekk risque. këcc nga entraîné Papa Sow ci combat bi yëpp seede ko tey ñu ñëw ba ci combat ay ay minutes des ci combat bi yàqu tey noo jàngati situation bi. supporters yi ñoo ko yàq ak tëggkat yi ñun ñu ngi suñu yoon. am nañu droit dem génne suñu sarax suñu voie nañu nekk dama ci voie Siteu il faut ñu xool logique ñun demuñu si si voie Siteu ñun dañuy nekk suñu voie am nañu droit dem génne suñu sarax suñu voie dëggkatu sabar amul droit di jël sabar di ko sànni sama atlet mais loolu c'est pas nañu wax de dëgg man papa laaj naa ko est-ce que mën na bëre su mënee bëre man duma médecin mais médecin bi moo moo joxe ndigal bu mënee bëre day bëre su mënul bëre mu dara bari na parce que affaire wax dëgg si yàlla dara bi dafa bari yow gis nga ko man gis naa ko Sénégal yëpp gis nañ ko mais Siteu papa lu mu liggéey Siteu liggéey ko ñoo ñoo yàq làmb gi man am na woon yaakaar rafet njorto damay daan Siteu jël bu gaaw parce que li may liggéey Siteu liggéey ko lu ma leer la mais kon dara ñu am droit de yàq làmb parce que ñoom ñoo ko yàq làmb boo ko xamee yàq boo ko boo xamee moo ko ne ko yàq ñoom dañuy yàq sama làmb te du yow ñu koy yàq danoo yàq sama làmb laa père ba père ba mi ngi doon di wax père ba mi ngi doon di wax boo xoolee père ba xam ne tey kontaanul. muy négocier ak yow yow yaa war a xam ni kii lii ak lii ak lii ak lii. Ah, il n'a il n'a aucun intérêt amu ci intérêt. mais boo ko jaayee doole mu jaayee la doole ndax moom moom yoon moo ko may doole. qu'est-ce que vous voulez. calmez-vous rek. non ñoom laay ñoom laay wax. Papa Sow noonu Diop. papa papa Sow sax dafa sonn papa Massa papa Sow sax dafa sonn papa ñu noonu dafa sonn gis nga ko nii papa médecin bi ko ba ngay wuy ji papa médecin bi moo ko papa ba ngay wuy ji papa ma ngay wuy ji papa Sow ma ngay wuy ji médecin bi moo ko papa ma ngay wuy ji waaye lim perte deret bari na papa lam perte deret bari na père ba yóbbuwaat na ko mu demaat ci médecin yi Siteu daal mi ngi ci digg bi moom di wër dëppoo legetam waaye Seydou géew bi yëpp ay picc la jëlama géew bi yëpp ay picc la xam nga tooñ picc yi mënoon nañ leen a bàyyi ñu dem jàll picc bu dekkiwaatoon xol bi du sedd ndax bëggul woon lii ñu koy def ay picc daa yàgg war warmaal picc ba tuddee ko jàll picc ñu jël picc yi def leen nii làmb ji naroon neex yàqu na. xaaral suwéetoo ko tey ñu ngi lay masawu. mais ak état bi nga toll ndax am nga yaakaar di nga mën a bëri day miir. Oh. Papa Sow day miir Seydou day miir. coow am na. Babacar Franc am na lu ko metti parce que papa li mu jëlee ci direct moom la mën tëdd seere mënu ko attanu ko Franc. mais dafa ñaaw presque. waaw dafa ngi noonu Franc am na lu ko naqari de Franc Franc am na lu

Thank you.